barres et les haltères parce que barres yi bari na ay façons y a des barres plates y a des barres EZ y a des barres Z et y a des barres fixes plus communément appelées les barres parallèles et les dips donc sur ce dañu am benn programme boo xam ne dañ ko concocté surtout pour wan ñi nga xam ne des fois amuñu temps wala bu ñu demee à la salle ils n'ont que les barres wala des petites astuces yoo xam ay haltères la wala ay bari ndaw seen kër seen fu ñu nekk mën nañu ànd di liggéey ak moom donc sur ce ñu ànd ak waa régie dem xool élément bi dellusiwaat sur le plateau après ñu continuer

cas, eh, coach, en tout cas, lui, il, il s'y prend bien. Hein, coach Ouais. Je t'y prends bien quand même. <laughs> C'est juste des exemples. <laughs> Ça se voit que le poids, justement, quand il est bien utilisé, il ne fait de mal à personne. exactement ça dépend ban poids ngay jël pour tonifier parce que li ñuy wax euh, euh, lan la ñuy wax sondeel dafa war a nekk reflet wu sondeel bi donc munoo ne da def dara wala di wane dara li ñuy wax euh, bëkk néeg bu deewee ci taatu saagu xorom. wàcc na yoonam ci taatu suukar saaku suukar <laughs> lañ ko war a fekk comme on dit donc tu vois c'est entre les bars ak bars yi xam ce sont des bars plates yii yëpp c'est des bars plates tu travailles seulement avec le poids de ton corps donc surtout nga mën a am centre de gravité bi nga xam ne c'est le rattachement du haut et du bas mu mën a am équilibre parce que on a tendance à avoir tout le temps soo demee salle wala gars yi ni ñuy entraîner am benn partie boo xam ne day am supériorité toujours soit il travaille plus que le haut te moom lañ ëpp lu ñu gis wala soit plus que le mouvements et ce sont des mouvements yoo xam ne yii une pierre plusieurs coups comme j'ai l'habitude de le dire de lay permettre nga liggéey en même temps sa dos sa jambe bi ak sa épaule bi ak grande dorsale bi donc là ñu ngi ci barre boo xamante ne da lay permettre nga def épaule jeté dem ci deadlift en même temps squat devant donc boo paree ci loolu nga nga dem ak barre bi nga xam ne euh, euh, barre fixe la carrément donc ça travaille carrément le haut pour que nga am taille comme on dit levé de la ba mu ñëw ci rond a la ceinture abdominale parce que c'est le rattachement du haut et du bas donc lépp foofu la centre de gravité bi nekk yaram bi foofu lay dajale donc foofu bu amul euh, euh, flexibilité da ngay déséquilibré wu tout le temps mooy ñi nga xamante ne seen kaw dafay diis bu ñuy dox booy jëm mag nga koy xam parce que da ngay dem ba dootoo attan ci kaw wala boo jëmee mag tuuti tànk yi du attan yaram bi wala yaram bi doo tànk yi dootu ko attan donc nekk na ay mouvement yoo xam ne benn bu ci nekk rek complémentarité wu beneen bi la pour may la nga am dëgër laay pour mën a taxaw mën a vaguer à tes bu fekkente ne sport du haut niveau ngay def ñu planifier ko te beneen manière boo xamante ne dina la permettre nga gën a mën a am résistance ak endurance boobu bu fekkente ne comme yéen journalistes yi wàcc maintenir la forme ñu changer le programme bi mu nekk ci beneen anam c'est très bien justement parce que dañuy faral di gis góor yi nga xamante ni dañuy am poids ci kaw comme ni nga ko waxee euh, ci suuf des sew euh, justement on a envie de voir ces assemblage bu parfait quand même hein euh, Fatima Diop quand on veut des muscles il faut travailler tous les muscles justement effectivement il faut travailler tous les muscles parce que muscles profonds yi boo ko dul liggéey rek da ngay mel ni li gars yi di wax habillage nga looloo tax des fois <laughs> les gars yi dafa habillé wu rek dafa am temps yaram nii mais dara nekku fa fond bi din forme bi di nga ko gis ni mais est-ce que fond bi am na dara donc forme bi bu rafetee fond bi war na am dara looloo tax nga gis ñu naan dijji dëgër moo ko gën wala ñu naan la sew diis Ce sont des mots. Celtis, moi, ça me fait penser à Fatima Diop tout de oh, suite, parce que moi, je sais qu'elle fait du poids, mais. Ce qui est plus important, moi. nga dijj ba pare dëgër mais boo sewee te diis aussi tamit nga am forme Fatima même bu dee tuuti mais macha allah. macha allah tu vois ma ma soeur et voilà waxuma boo xoolee macha allah te li fii. bi wax forme bi kon. non lii laay wax li ci bopp bi. déedéet ma ne waxoo fond bi. asma bu ma dugal. xam nga fond bi mooy li ci bopp bi. mais forme bi la wax. xool ko mu may génnee sama sama zone xam na ni mënatuma ko toj léegi il faut mu ma tax. <laughs> non non ma ma expliquer. donc man ci ban poids laa bokk Germaine Bintaba ci ban poids lañ bokk. non mais yéen ñëpp yéen a ngi ci même même élancé bi sauf si que tonifier bi rek ngeen di def adam tonifier votre corps maintenir la forme. non non mais je veux dire par là est-ce que nous on fait partie des CO10 wala des moyennes. ah là là là là là je suis bouche bée. c'est pas à moi de dire de. <laughs> mais justement c'est ton expertise en tant que coach qu'on demande là. voilà mais si tu viens à la salle en tant que cliente wala en tant qu'adhérente ne me je veux. xaaral dama ne lan moo la indi ci saal bi bu ñuy def entretien dama naan lan mooy sa objectif lan moo tax nga ñëw ci salle bi lan nga bëgg qu'est-ce que tu veux da nga bëgg perte de poids da nga bëgg amincir. da nga bëgg prise de masse coach Moussa sama genre lan la ñu war a def parce que il y a des gens ils vont venir en salle ils savent pas euh, effectivement ce qui est adaptable ou adapté pour seen type de corps sama genre yi nga xam ne dañuy gàtt c'est des naafs qu'est-ce qu'il leur faut justement les naafs qui viennent mais la première des choses di njëkk mooy est-ce que dem nga gis médecin ba mu autoriser la nga am lu euh, euh, mu tuddati. Euh, non non non euh, le mot j'ai perdu le mot exactement. je le perturbe je sais. non pas parce que pour nga i certificat d'aptitude exactement il nga apte pour faire le sport c'est pas parce que gis naa Germaine elle est bien machallah elle dégage elle est là dama bëgg mel ni moom amaat forme yi damay def sport direct non il faut aller voir le médecin mu jox la certificat d'aptitude ndax amuloo problème xol ndax amuloo problème articulaire wala amuloo problème musculaire loolu lépp dafa am importance ni warul tëb rek dem def sport nii et tout le monde le ñu bari ñu ngi koy def et c'est très dangereux première chose mooy yaay dem ci médecin bu dee da nga ñëw ci salle boo xam ne c'est un peu avancé le coach wala le gérant dina la poser ay questions laaj la est-ce que ces trois dernières wala un mois là amuloo maladie problème cardiovasculaire musculaire wala amoo lenn lu lay metti en ce ngeen dem ci étape bi toi tu nga wax ko ne ko man dama ñëw mu ne luy sa objectif nga ne ko dama bëgg jël poids dama bëgg perdre poids nii et de suite après di la commencer di la wax ban entraînement nga war a def lan nga war a lekk ñaata temps nga war a entraîner et combien de fois nga war a ñëw comme un débutant. Euh, mais coach euh, vu quelque part y a des sportifs yoo xamante ne bu ku ci activités yi nga doon di gën di euh, travailler yooyu moo lay sonal bu ñu xoolee ci les joueurs les footballeurs d'habitude c'est seen kii euh, cuisse yi ñoom la ñuy ëpp lu ñuy travailler mais da ngay gis après bu ñu demee ñenn ñi après dañuy am problème mu tànk. voilà parce que loolu day fekkente ne bu fekkente ne li ñuy wax amuloo suivi wala amuloo hygiène de vie. Mm-hmm. xoolal un gars comme Cristiano Ronaldo il a 36 ans. quand même il fait 26 ans. non 23 ans. bi ñu defee scientifiquement on a dit que a la forme ou genèse ou jeune bu am 23 ans donc Cristiano peut jouer encore fii ak 5 ak 6 ak 7 ans parce que dafa consacré wu hygiène de vie la ça fait partie l'alimentation la récupération cadre de vie bi et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu donnes yooyu yëpp c'est important benn assemblage boo xam ne c'est pas seulement le fait d'aller à l'entraînement mhm. wala def benn discipline dafa am cercle restreint boo xam ne c'est une chaîne mhm. il faut que nga suivre ko pour que bi mu am benn après fin carrière mu mën a continuer de garder la forme au naturel comme on dit mais day fekk instant bi jëlul dopage jëlul lenn loo xamante ne si ay lu baaxul la ci wàllu entraînement loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne nag euh, jëluñ prêté wuñu attention si loolu su ñu demee après fin de carrière c'est normal di nga am ay bobo mais toujours nga mën a teel a def euh, sa sa sa changement dem def beneen entraînement lu continuer loo xamante ne day garder loo sa forme toujours parce que entraînement kenn du nekk ci haut niveau xëy rek bàyyi noonu complètement c'est normal loolu moom